kon si guddi gi ne moo ñu dudd tey bis bii talaata bii tey jii waaye di ko ñaanal yàlla suuf jëmu jëm xam naa mooy suufu Touba yàlla xare ko àjjana teg la ko ci njabootam monde làmb yëpp tey jii am nañ leen naqari monde làmb yëpp tey jii am nañ tiis am tiis bu leen bett suñu mag jooju nekk grand champion ca teey ga ca dal ga ca yar ga ak ca ñàkk soxor ga moo ñu dudd tey jii di ñaanal nag yàlla yërëm yéexanu ñu des bi di